salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu lay nuyu. ah ñu ngi delloo ziar bu baax baax alhamdulilah. tur bi naka la. Modou Habib Dieng. sëñ Modou euh, lu ñuy waxtaanee tey moo dañu nemmeeku dañuy gis ni jigéen ñu bari euh, rawatina ñi ñuy gën a xàmmee wala ñuy nekk si TikTok beeg internet bi ñu leen wax influenceuse euh, dañ leen di gis wala sax dañuy dem fi nga xamante ni mooy Dubaï. Dubaay du ñëpp nag mais bu ñu fa demee dañuy mbuboon ñoom dañuy dem liggéey dañuy mbuboon dañu am ay business nekkate ñoom dañ fay def naka sudul noonu naar di leen tëddee di leen boole ak ay mala ak yeneen yoo xamante ne sax ñu ko tudd loolu en tant que sénégalais yow noo ko gisee ah, ginnaaw bi leen nuyoo di leen jaar bu baax tey rafetlu maanaam li ngeen def nii am na solo la wax dëgg yàlla di wër ci mbedd yi di laaj ku nekk sa xalaat nu mu xalaat ci mbir mi xew Dubaay loolu moom xalaakul la xaan rafetul moom ndax jigéen da am ne nu ñu ko xamee ci biir société bi ndax koo xam ne éducatrice nga war a doon yarkat nga doon nga nga war a doon ëllëg jàpp naa ne am na ci yoo xam bu la ci déggee rek day ñaaw lool lool lool na di génn ci réew mi ñu jàpp ne lu ne nga fay def yaa ngi liggéey wala yaa ngi ci lu neex yàlla wala yaa ngi ci loo xam ne yaa ngi say waajur oo contraire que ne yow yaa ngi ci leneen loo xam ne neexul say waajur set que ne am na ci benn côté woo xam ne parents yi am na ci responsabilité am na ci responsabilité bu rëy rëy maanaam xam seen doom bu ñu génnee réew mi dem ci yenn réew yu ñu xam lan lañ fa nekkee ak lan lañ fay liggéey mais moo gën ñu bàyyi leen si leen neex rek bu ëllëg conséquences yi nga xam ne mi ngi amaat moo moo nga xam ne li xew tey jii ñoom duñ sa rendre compte xalaa ku la xarafetul moom ndax jigéen ñi ko xamee leen képp la liggéey jaamu yàlla ya ak njabootam au contraire que da nga nekkaat ci leneen loo xam ne moom neexul yàlla maanaam jëf ji dafa ñaaw ba nga xam ne maanaam wax ci sax day xaw a doy waar ndax ku ne gis na vidéo yi ku ne gis na image ni mu demee ñaaw na wax dëgg yàlla ñaaw na lool xalaakul xaali ñaaw dëgg yàlla ñaaw na lool. Euh, comme ni ñu naan les responsabilités sont ndax jàpp nga ni waajur yi am nañ ci cër. waaw certes waajur am nañ ci cër ndax jàpp naa ne waajur bu nekk sa doom bu génnee réew mi nekk wala dëkk ba mu nekk dem feneen war ngaa xam ci lan la fa nekkee xëy na nag am na waajur yoo xam ne dinañ ko xam mais xëy na maanaam métti métti àdduna ak métti métti jamono moo leen jàpp. bañ bàyyi leen ci leen nekk mais loolu de adduna lu metti metti metti ak lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër waajur ba nekk war naa re war naa yar doomam ci dignité ak ci ngor ba nga xam ne maanaam fu mu mën di nekk ngor googu ak dignité jooju moom la fa yóbbaale waaye xëy na tamit ñaar côté yëpp am am nañ si am nañ si wàll ñi nañ si wàll waaye nag waajur moom ñoo si gën am wàll wax dëgg yàlla moom ndax yar gi ci ñoom la ndax doomu aadama boo ko yaree na nga ko war a yaree dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du dem fenn ba nekk fa nekk fa naka suul noonu ma jàpp naa ne wax dëgg yàlla waajur tamit am nañu ci wàllu dëgg yàlla am nañu ci wàllu bu baax a baax. bu baax a baax. ndax état état war naa xam doomu réewam naka lay nekkee ci réewu jàmbur ndaxte sa doomu réew ba génnee rek war ko bàyyi mu libre nekk fa na ko neexee état am na ci wàllu dëgg yàlla ndaxte war nañu contrôler étranger yi nga xam ñoo génn réew mi nekk ci réewu jàmbur nañ fa nekkee ak nañ fa dox ba xam ña ci jàmm wala ba xam dañ fay traité baax na wala déet wala yooyu yëpp état da ko war a gëstu baax a baax ba xam maanaam doomu réewam naka lañ nekkee ci réew jàmbur comme dañuy réew bi ñu ko defee ndaxte am na réew yi réew bàyyiwul leen rek buñ bi génnee ñoom tamit ñi leen suur ñu xool ba xam leen di traité baax wala déet wala nangam nangam mais état tamit tamit am na ci wàllu lu baax a baax dëgg bu leen mën a lu baax baax a baax ne tamit mett na lool ci mënu ne fu nekk nekk rek maanaam dama ko bëggee noo ko amee mais nag dinañ jàpp lu baax baax dëgg la ndax sonn nañ loolu wax dëgg yàlla ndax mbirum métti na loolu dëgg yàlla ci dawat na jigéen nag métti na loolu dëgg yàlla macha allah. dañu gis ne alors ban gis nga am ci am affaire bi am Dubaay. ah rafetul de man de bi démb laa ko yëg mais loolu baaxul bu nekkee xale nekk jigéen takk sa sër nga dem liggéey loolu mooy doole jigéen mais di jaay sa bopp loolu man gëmuma loolu boo nekkee jigéen gëmma sa bopp taaru jigéen lan la boo tollee ci say sayal boo tollu ci say takka sa sax nga dem liggéey mais jaay sa bopp rafetul daal ci suñu sénégalais daal ñu yàq suñu der te man démb bu ma ko yéegee dama dégg ñu ne sénégalais ñoo koy def mais rafetul c'est pas normal dañoo tàggoo pour dem liggéey nañu liggéey mais dem ay Dubaay Turquie di liggéey di def man daal mu xaw ma daal nu laa ko mën a wexee mais rafetul daal. rafetul jigéen. est-ce que nekkul tamit concurrence bu metti bi sama morom sol na lii damay sol lii sama morom am na. damay sol lii loolu xam nga ma lan la ñàkk gëm sa bopp la par exemple man tey dama koy xoolee sama bopp du ma gis sama morom comme takk na cheveux ma ne man damay takk cheveux man damaa xam kooku nu def ba am ko. man naa liggéey rek xëy na yàlla baax na su ma liggéey dina ko am mais yow nga gis concurrence sa morom def na lii yow nga ne du nga def de man bu dee pour man boo sama bopp laa koy xoolee man dama gis tey sama moromu jigéen am lii ma ne man dinaa def comme kii nu mu am def ba am lu mu am man ma def noonu am ko déedéet naa liggéey rek su ma gëmee sama bopp gëm ne man lii ma def fu ma liggéeyee dinaa ko am dinaa ko am mais su ma xëyee xëy gis sama morom am ma ne kii dinaa def lu comme ma def ba takk cheveux man dinaa def noonu loolu rafetul c'est pas normal. waajur yi ban responsabilité lañ ci am. waajur yi tamit ñoom tamit nañu waxaa xoolaat seen bopp bu baax man tey su ma génnee sama papa dina ma woo foo nekk ma ne ko fii laa nekk wala sama yaay am na jigéen yoo xamante ne lépp lu ñuy def ñenn ñi sañ waajur la nag sa doom bu amee xaalis laajoo ko fu mu ko jëlee yow na la andi jox jox nga lekk toog loolu rafetul doom bu jigéen bu andee xaalis laaj ko fu mu ko jëlee man tey suma ma amee xaalis indee xaalis sama yaay mën naa foo ko jëlee mën na ko diw moo ma ko jox te dina ma topp bu mu sës man damay jaay ndékki man nu ma gisee nii damay ñëw marché pour dagg sama soble bi damay jaay ndékki depuis côté ba mu ba léegi jaayu ma suba laay reprendre waat mais jigéen la am na benn doom su ma neexoon dem jaay sama bopp maintenant nu ma neex mais du ma ko def. mel nga lu la neex tumaane jëlal xale bi xale bi mel na nu ko du ma ko def su ma neexee dem jaay sama bopp dinaa ci am xaalis mais loolu daal pour man c'est pas takk sama sër liggéey loolu laa gën a bopp loolu laa gën a gëm jaay sama bopp loolu daal bëgguma ko man maa ngi nii xale la am naa benn doom am sama doom am na huit ans xale bu ndaw laa su ma neexee dem jaay sama bopp mais defuma ko damay xelal sama taabu jaay. heure wàcc ma wàcc reprendre waat ñëwaat marché bu ma xëyee ci guddi laa même chose ma def mais xool sama maram jigéen ma am ma am ko déedéet ah sama taal bi may ko may ma ko wala ko moom mu damay yéene ma nga may ma mais jaay sama bopp loolu gaw ma ko man laaxkat a xaw ma loolu di la fay bu baax di leen delloo ziar rek te xam ne ñun ñëpp ñoo bëgg ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp ñoo bëgg bokk bëgg-bëgg kon nag lu bon moom baaxul ak képp ku koy def nag muy man sama doom ak sama famille yëpp a am lu bon baaxul nañ leen di ñaan yàlla rek yàlla génn leen si delloo si waat leen seen réew lu ñu am rek ñu ñu ñu doyloo daal doomu aadama da ngay doylu te yàlla tax sa dërëm bi bu ko xeeb bul xool kii yore milliard bu ko xool yow dërëm bi la yàlla jox moom ngay xool te yàlla tax soo ko defee rek waa si dingite ak lu mënti me rek day day barkel day barkel. pour moo tax pour lan moo tax xale yi di dem. loolu la dañuy gis nit moo ba e, e, étage bu gudd rek nga ne man damay dem def ko moom loolu moo leen si dugal loolu kese du leneen nag. nit day am dara nga ne xaaral ma dem def ne moom te yàlla dafa binte yëmaliwut doomu aadama ñëpp yemuñ doom ñu nga jur sooy duñ duñ benn dañ war gi dañoo dañuy sutante waaw kay yow nag boo bëggee yóotu li nga xam ne yàlla jox la da ngay sonn wala ni nga def loo xam ne du neex yàlla yàlla na leen si yàlla génn daal man laay wax. amuñu si responsabilité waajur. waajur am na ñoo xam ne seen doom yi dañ dañ see mënul dara dañ leen mënulu dara am na ñoo xam ne danañ wax am na ñoo xam ne dañuy seetaan moo war a loolu am na ñoo xam ne dañuy dem dañuy nëbbu dem xam ku nëbbati dem yow mënuloo ko dara yal na leen yàlla wàññiwaat daal man rek laay wax waaw yal na leen yàlla wàññiwaat teg leen ci yoon salaatal mustaqim waaw macha allah alors yow dañ la fekk nga toog nii ah ub sey say jën yu baax macha allah euh, mën nga ñu fàttali tur bi wax ni tamit marché bi nga nekk nan la tudd. fii mooy marché Grand Yoff waaw man jaay laay jaay ak yobay waaw ñi jaay jën yi mag nag ñu ngi si biir waaw ñu ngi si biir. macha nga yeew. man 5 heures du matin kay laa géej bala maa wàcc fi ay 3 xale yi dañuy jàng moo tax samedi ak dimanche rek lañ may jàppale mu ñëw nag moom day métti si man waaye nag yàlla baax na santaat rek na am na ñoo xam ne ñu ngi ko bëgg tam mu mënuñ ko ñu am na ñu yore milliard te fañ tëdd mënuñ faa jóg kon nag santaat yàlla bu baax dool di ko sant. yaa ngi koy am ak ci dignité ak ci ngor. waaw moom kay moom ñaq rek jariñu waaw ñaq rek jariñu waaw. waaw. jar yii nii. benn deux cent cinquante. mais ji yi jar seer na de. yow ma yónni woon nii ma war a jënd nii meer lii lii. franc waaw ah, dafa seet. mais mi dafa métti. ay kees quarante mille jëm kaw. yii nii waaw si li jën yi jar yi ñoo seer moo tax. léegi daa mel ne junni dematul dépense. déedéet jën yi moom fi mu nii moom li muy jar jaaduwut. déedéet waaw ah, ku bëgg sa ñu toggal a ceeb jën bu baax foog nga génne ñaari junni daal déedéet ñaari junni bëri na sax ceeb bu dee kër gu ndaw kay ñaari junni na moom boo waxee lii juróom fukk ma bëgg si am kat kat daanaka waaw waaw loolu dara waaw ñëwagul ceeb yàlla yàlla nañ yàlla may daal oyofal rek ba ñu am luñ taalal di jënd loolu rek mooy coow li ma bu baa daal la ñëw fii si waaw kay si maam Sow waaw kay maam Sow waaw kay jërëjëf thank you